asalaamaaleykum sama gars ñu ngi leen di ziare bu baax a baax fii ci réew mi sport aljuma le mille août 2024 ñu ñëw ci xibaar yi bu fekkee ne abonné go ñu ngi sàkku nga abonné partage lii di vidéo bi vraiment c'est hyper important pour lu jëm ci wàllu chaîne bi ñu ñëw ci xibaar yi. xibaar yi dañ koy euh, commencé ci équipe nationale bu Sénégal xam ngeen ne aljuma gi nga xam ne moom la ñu dëkkmal Sénégal dina dem dalal équipe bi nga xam ne mooy Burkina Faso soxal lii di première journée lii di qualification Coupe d'Afrique vingt 2024 ki nga xamante si ne mooy Aliou Cissé tey jii la doon siiwal ñaar fukki joueurs ak juróom benn 26 joueurs yi nga xam ne ñoo war a teewal Sénégal contre Burkina Faso ak contre kii di Burundi ci fàttali nag Sénégal mi ngi nekk groupe L boole kaak euh, Burkina Faso Burundi ak kii di Malawi Aliou Cissé bokk na ci li nga xam ne xamle na ko mooy que am na nu muy demee balaa match yee commencé euh, groupe bi dina soppeeku maanaam dafa am joueurs yoo xam ne mën naa am balaa match bi commencé dinañ génn euh, ndax forme de physique kon dañu fas yéene ñëw wax leen 26 joueurs yi nga xam ne Aliou Cissé na leen bu ñu aussi dinañ ci toftal li nga xam ne moom mooy conférence de bi nga xam ne Aliou Cissé am na ko maanaam daal janoo ak taskatu xibaar yi mu dox ci diggante laaj ak tontu kon ñu fas yéene ñëw ci liste 26 joueurs yi nga xam ne Aliou Cissé convoqué na leen. liste bi dañu koy commencé ci première euh, convocation bi euh, kii di Edouard euh, Mendy le gardien de but donc dal Ahli di benn club bu nekk ca Arabie Saoudite le champion d'Afrique deux mille donc vingt et toujours donc moo ngi bokk ci lii di plan yu Aliou Cissé moom kii di Edouard Mendy. keneen ki nga xam ne moom lañ tabb def ko deuxième gardien bi toujours ci champion d'Afrique yi la bokk di kii di Seny Dieng. mi nga xam ne ma ngay góolu fële ci Angleterre moom kii di Seny Dieng donc bokk na ci joueurs yi nga xam ne ñoom it depuis que ñu teg ci tànkam équipe nationale bu Sénégal ba tey bu fekkee ne dara jotu leen Aliou Cissé toujours daf koy convoqué moom kii di Seny Dieng troisième gardien bi mooy kii di euh, euh, Mory Diaw Mory jaw di gardien de bi bu Clermont nga xam ne ëllëgëm fi ñu toll nii ci mercato bi dara leeragu ci moom kii di muuri jaw ndaxte ñu ngi koy dégg ci côté Nantes mais nag selon les dernières informations transfert am à Nantes mën naa am problème donc moom mooy troisième joueur bu lii di troisième gardien équipe nationale bu Sénégal. toujours donc ci liste Aliou Cissé bi woona ñaari donc champion d'Afrique yi di kii di Kalidou Koulibaly di kii di Abdou Lahad Diallo Kalidou Koulibaly di football ca euh, championnat bu Arabie Saoudite euh, kii di euh, Abdou Lahad Diallo nekk fële ci Arabie Saoudite foofu ca Qatar donc ñaam ñaar ñi nga xam ne ñoom la nekkul dio bi nga xam ne ba Sénégal di gagné première coupe d'Afrique des nations ñoom ñoo fa nekkoon mooy duo bi nga xam ne ñoo teewaloon aussi Sénégal ci lii di coup du monde atum 2022 bi amoon fële ca Qatar donc di kii di Abdou Lahad jaalo et Kalidou Koulibaly sixième joueur bi ci list Aliou Cissé bi mooy kii di Moussa njaxate musa njaxate mi nga xam ne benn début saison bu compliqué la amal moom mi nga xam ne mooy défenseur bi gën a seer ci histoire bu Olympique de Lyonnais et donc ñu recruter ko fële ca Nottingham Forest ci benn somme bu toll ci 31 millions moom tamit kii di Aliou Cissé woo na ko. ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Abdoulaye Seck tamit woon nañ ko moom mi nga xam ne actuellement ay moment yu difficile lay dund moom kii di Abdoulaye Seck ndaxte dafa ñàkk doomam ju jigéen moom moo génn àdduna fan yële ñu génn moom défenseur Maccabi Haifa di benn club bu nekk ca Israël kon ñu ngi koy jaale moom tamit Aliou na ko ci équipe nationale bu Sénégal. huitième joueur bi mooy kii di euh, Mikayil Ngor fay Mikayil Ngor Faye mi nga xam ne euh, quitté na FC Barcelone euh, ci semaine bi ñu weesu daal di signé ci club bu français boobu di Stade Rennais moom nekk na ci rythme parce que jamono ji mu nekk Barça yëpp mi ngi def entraîné et que def na pré-saison avec le Barça donc moom manqué wu rythme actuellement pour mën a jouer ci équipe nationale bu Sénégal. keneen ki nga xam ne aussi woo nañ ko ci liste 26 joueurs yi mooy kii di Ismaël euh, Jacobs donc Ismaël Jacobs di latéral gauche bi nekk fële ca euh, AS Monaco moom sax dina signé di fële ca Galatasaray lu yàggul dara équipe bi nga xam ne moom mooy Monaco daf koy abal Galatasaray Galatasaray bu saison bi jeexee dina ko jënde 10 millions donc Jacobs bientôt mu quitté euh, Ligue 1 pour Turquie moom tamit woo nañ ko. ki nga xam ne ma nga ca championnat bu Qatar aussi di kii di euh, Seydou Sano di défenseur euh, bi nga xamante si ni moom it daanaka aw na bépp catégorie boo xam ne moom la joueur Sénégal war a aw pour mën a yeew ci équipe première bi moom défenseur central bi nekk fële ci Al Karafa donc officiellement moom tamit woon nañ ko ci liste vingt lii di six joueurs yi ki nga xam ne moom moo ci bees ñu koy tuddee El Hadji Malick Diouf doomu Ziguinchor la moom ma ngay football ci benn club donc tchèque bu ñuy tuddee Slavia Prague moom ab latéral gauche la fukki at ak juróom-ñeent donc la am 19 ans ñu ngi koy félicité bu baax a baax moom bi mooy première fois ñu woo ko moom latéral gauche bii di Aladji Malick Diouf. keneen ki nga xam ne woo nañ ko aussi moom équipe bam wàcc na deuxième division ñu koy tuddee kii di Formose Mendy nekk ci benn club bu ñuy tuddee Lorient moom ak kii di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng ñoo bokk équipe moom kii di euh, donc euh, Formose Mendy mën a jouer axe centrale waaye en même temps aussi mën a jouer latéral droite nekk joueur boo xam ne bu polyvalent la après côté défense bi ñu dem ci côté milieu de terrain bi fekk fa Idrissa Gana Gueye la légende ci fàttali Idrissa Gana Gueye moom mooy joueur Sénégal bi ëpp lu mu joué ay match ci histoire équipe nationale bu Sénégal moom bokkoon na ci rares joueurs yi nga xam ne participé woon nañ Jeux olympiques plus de dix ans ci ginnaaw moom woon nañ ko ak avenir bii di Lamine Camara mi nga xam ne début saison bu exceptionnel la def ak club boobu di AS Monaco déjà marqué na premier butam ci Ligue 1 ci mooy équipe boobu di AS Monaco donc Lamine Camara et Idrissa Gana Gueye convoqué ci côté milieu de terrain bi euh, toujours côté milieu de terrain bi kii di euh, donc euh, Pathé Ciss nga xam ne moom participé na ci dernier match Liga troisième journée diggante FC Barcelone ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Rayo Vallecano moom duggal na ci deuxième mi-temps bi moom donc di rakk ci kii di ali Saliou Ciss donc moom tamit woon nañ ko ci côté milieu de terrain bi. toujours côté milieu de terrain bi Pape Matar sax donc di milieu de terrain club bi di Tottenham moom mi nga xam ne aussi am na temps de jeu ci début bi dont nag titulairewul les trois mat yi nga xam ne amagun na en Premier League donc moom tamit euh, doo bokk si yi nga xam ne ëllëg lañ ci équipe nationale bu Sénégal moom kii di Pape Matar Sarr woo nañ ko. keneen ki nga xam ne aussi début match bu mucc ayib la def nekk sax li nga xam ne mooy capitaine ci club boobu di Strasbourg umpale woon na ne Strasbourg club la boo xam ne dañu yor projet bu baax a baax li ko gën a waral bokk na ci eh, Chelsea mi nga xam ne da cee dugal lii di loxoom donc kii di Habib Diallo donc kii di Habib Diarra donc woo nañ ko moom tamit ci côté équipe nationale bu Sénégal. keneen ki nga xam ne aussi woon nañ ko ci équipe nationale bu Sénégal di kii di euh, Pape Alassane Gueye Pape Alassane Gueye mi nga xam ne ren gi nii bokk na ci joueurs yu Sénégal yu bëri yi nga xam ne jóge nañ euh, club dem ci beneen club maanaam changé nañ équipe moom mi nga xam ne actuellement joueur bu Villarreal la donc kii di Pape Alassane Gueye moom tamit bokk si ñu gagné woon Coupe d'Afrique des Nations dikk na ci équipe nationale bi. beneen joueur boo xam ne dikk na ci équipe nationale bi tamit di kii di Nampalys Mendy di milieu de terrain bi nekk ci club boobu di FC moom ki nga xam ne moom mooy Nampalys Mendy bokk ci joueurs yi nga xam ne aussi tamit euh, ba ñu dikkee ci équipe nationale bu Sénégal ba tey ak coppite la ñu gis ci équipe bi bokk joueurs yi nga xam ne mënut a ñàkk ci lii di plan bu kii di ali Aliou Cissé après côté défense bi ñu dem ci meilleur buteur histoire bu Sénégal. di kii di Sadio Mané mi nga xam ne début saison bi xaw a compliqué donc te dernier match yi xaw na tane ndaxte mi ngi def ay ay stats donc di marqué waaye tamit di def ay passes décisives Sadio Mané donc def na retouram ci équipe nationale bu Sénégal moom la numéro 10 euh, le vice capitaine Sadio Mané. keneen ki nga xam ne aussi ba mu changé club yàggul dara marqué na sax premier bi am démb ñu koy tuddee kii di euh, Habib Diallo donc doomu Thiès bi tamit. bokk ci joueurs yi nga xamante si nii décevoir luñ Sénégal ci dernière Coupe d'Afrique des Nations bi bi amoon foofu ci Côte d'Ivoire moom mi nga xam ne dugal na sax contre Côte d'Ivoire donc ki nga xam ne mooy Habib Diallo moom it ay points yu bëree bëri dikk na Ismaïla Sarr Iliman Ndiaye ñaari joueurs yi yëpp quitté Olympique de Marseille ci mercato bi donc ànd dem fële ca Premier League kenn ki ca Crystal Palace kii di Ismaïla Sarr et l'autre fële ci Everton bu gànn gi di Iliman Ndiaye donc ñaari joueurs yëpp tamit Aliou woon na leen ci équipe nationale bu Sénégal parce que bokk nañ ci ñi nga xam ne aussi après donc euh, li nga xam ne mooy légende yi comme Sadio comme kii di euh, Idrissa Gana Gueye ñoom ñoo pare pour yenu li nga xam ne mooy équipe nationale bu Sénégal. toujours donc ñu wax ci attaquant bii ni Nicolas Jackson moom déjà marqué na bi biam ci mooy équipe boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee Chelsea cette saison moom kii di euh, Nicolas Jackson moom mi nga xam ne ba tey jii nii mi nga wër premier butam ci équipe nationale bu Sénégal moom doomu donc li nga xam ne mooy Banjul bii. kon moom tamit bokk na ci ñi nga xam ne Aliou Cissé woo leen ci équipe nationale bu Sénégal keneen ki nga xam ne Aliou Cissé na ko te ren gi mu pare pour jouer Ligue des champions ñu koy tuddee Abdallah Sima saison bi ñu génn Brighton moo ko jëloon abaloon ko équipe bi di Rangers Glasgow ca donc championnat bu Écosse ñëwaat na ba équipe bi di Brighton abalaat ko beneen club français bu ñuy tuddee Stade Brestois donc moom tamit Aliou Cissé woo na ko. beneen joueur bi nga xam ne Aliou Cissé woo ko moom kese moo fay football championnat bu Serbie. ñu koy tuddee kii di Serif Ndiaye nekk foofu ci l'Étoile Rouge garde donc moom kii di Serif Ndiaye moom tamit bokk ci attaquant yi nga xam ne dañuy xeex pour jël seen place kon gaa ñi lii mooy liste 26 joueurs yi nga xam ne Aliou Cissé leen kon benn coppite rek moo ci am di ñëw kii di El Hadji Malick Diouf ñu fas yéene ñëw ci conférence de presse bu kii di Aliou Cissé bëri ay question yoo xam ne laaj nañ ko ko. bokk na la ca njëkk Aliou Cissé la mu njëkk wax bokk na ci heure bii nii heure bu jafe la pour woo joueur ndaxte bu mercato di dog di jeex ba saison bi di commencé ak bu saison bi di dog jeex bu mercato di dog di jeex saison bi di commencé joueur yi duñ amagul rythme duñ nekkagul forme bu saison bi di dog di jeex joueur yi dañuy dañuy dañuy dañuy donc ñaari fenêtre yi dafa jafe ci ab sélectionneur te match yi donc dafa jegante donc loolu bokk na ci li Aliou daal di xamle ci début conférence de am benn taskatu xibaar bu ko laaj Aliou Cissé Walf sax la nekk ne ko kii di Bogarde di ki nga xam ne moo toppoon sa ginnaaw nekk sa adjoint quitté na ci équipe nationale bu Sénégal damaa dégg ñu ne da ngeen a xuloo Aliou Cissé neen leen yéen yam leen parce que diggante bi ngeen bëgg a dugg diggante man ak kii di Régis Bogarde xajoo leen ci man ak moom fukki at ak ñett ñi ngi ànd moom defal na lépp Sénégal Sénégal tamit defal na ko lépp nañ ko jaajëfal bañ koy indi kenn xamu ko man maa ko fi indi donc dem na ba bëgg a dem respecté ak demam au moins moom benn problème xanaa problème yi may am parfois ak joueurs yi problème yu am ak ak ak dirigeant yi mais man ak kii diriger Boughaardi donc amuñ benn jafe moom moo bëgg a juge jóge fi ñu laaj ko Aliou pap euh, Pape Thiaw est-ce que yow yaa ko tànn wala boog dirigeant yi ñoo ko tànn mu wax journaliste bi ne ko yow da ngeen di chercher ay problème Pape Thiaw doomu Sénégal la te bu njëkk adjoint bu Sénégal en général ci équipe nationale bi doomu Sénégal laan doon ki daan topp ci sélectionneur bi doomu Sénégal laan doon yéena ko doon demandé tey ma defal ko ñenn naan lan moo tax donc ma fal ko war a bokk man maa ko fal war a ñëlee li wër bu wër mooy mérito na fi mu nekk moom kii di Pape Thiaw ba mu ko xamee ba tey mën na fanweeri at 30 ans donc pour man euh, ku baax la donc mën naa ñëw pour jàppale bu baax baax équipe bi boo ma fi jógee tamit mën na doon ne man mooy topp ci samay ginnaaw ñu gis ne ko Aliou dañoo gis ne sa équipe bi nga woo yëpp amul latéral droite Euh, te gis nañu ne vraiment dafa mel ne loolu problème la ci yow Aliou Cissé nee na depuis année 1980 yi Sénégal dafa yàgg di am problème la latéral gauche da yàgg di am problème latéral droite ba tey jii nii donc Habib jaara man naa jouer latéral droite. waaw man ba may toog di Krépin Diatta Sénégalais yëpp waxoon nañ wala ko fee teg waaw waaw mais après ba Coupe d'Afrique weesu ñëpp d'accord nañ donc xam leen ne daal actuellement Sénégal Habib Diarra man laa soxla comme piston droite ci kanam nag bëgg naa intégrer yeneen joueurs bu ko jaree El Hadj Malick Diouf lan moo tax nga woo ko xam nga El Hadj Malick dafa doon xale boo xamante si 19 ans la am et que ngi def saison bu baax baax baax ci club bële mu nekk di donc euh, waa Belavia kii di Sparta Brague donc loolu kon pour man mérite la ci moom euh, Sénégal seen lii di génération bi 2000 yi donc dafa baax génération 2000 bi ñu am diggante 19 ans ba 23 ans donc yooyu yëpp donc dañuy nekk ci forme doon ay génération yoo xam ne yu doore la kon euh, pour man woo ko ci équipe bi baax na parce moom ak li nga xam ne moom mooy xale yi ñoom Pape Matar Sarr ñooñu ñoo pare pour lekk ëllëg équipe nationale bu Sénégal ñu laaj ko ci adversaire bi di Burkina Faso mu ne Burkina Faso xam ngeen ne dafa xaw a nuroo ak ki nga xam ne moom la ñu tuddee RD Congo équipe lañ yoo xam ne dañu lakkale la dernière fois bi nga xam ne dikk woon nañ fii ñoom kii di waa kii di Burkina c'était donc en 2018 qualification coupe du monde boobu la jafe woon na si ñun dañu defoon un bi fi nga xam ne moom mooy ci biir Sénégal kon xam nañu ne dañu defoon donc 0-0 dañu defoon match nul donc xam ngeen ki nga xam ne moom mooy kon euh, Burkina nekkul ab équipe boo xam ne bu yomb la beneen bi mooy Aliou Cissé nee na mi ngi euh, journaliste bi ko laaj ne ko dañoo seetu léegi supporters Sénégal yi ñëw ñëwatuñ lu bëri ci euh, stade bi mu ne loolu li ko waral nekkul ne dañoo taayal ci équipe bi mais parfois li ko waral bokk na ci fa stade ba nekk boo jigee Dakar war dem jëm ñaajo parfois day xaw a jafe mais la ma gisoon contre Égypte ci noonu laa bëgg di gis à chaque fois équipe nationale bu Sénégal donc gars yi ñi bëgg nañ ko bu baax a baax beneen bi nga xam ne xamal na ko mooy nee na gars yi nañu bàyyi dem sol costume ba mu rafet ak ñëw toog nee na loolu du supporter mais loolu seetaan la nañu bàyyi supporter yi ñu ñëw supporter li nga xamante si nii moom mooy équipe bi Aliou Cissé ba tey taskatu xibaar bi laaj ko sa salaire ci équipe bi maanaam salaire ki lii di euh, aérien yooyu nga xam ne si nii donc dañ kaa dañ la kaa fay te fayaguñ ko mu ne loolu nañ ko teg ci ginnaaw te xam ne man donc doomu Sénégal Aliou Cissé tamit ñu laaj ko euh, normalement yow suba la sa contrat war a jeex mu ne moom euh, suiwul euh, yorul sélectionneur bi pour donc lii di contrat ndax moom doomu Sénégal la avant tout euh, bu heure signé jotee donc day signé ci fàttali gaañ ñi Aliou Cissé suba la contrat war a jeex ak équipe nationale bu Sénégal ñu laaj ko ci Sénégal parfois euh, donc jafe-jafe yi muy am pour dugal ay bii mu ne bu leen xool jafe-jafe yi ñu am pour dugal ay bii rek mais da leen aussi euh, maanaam défensivement ni ñu baaxee parce que boo xoolee douze derniers matchs yi maanaam fukki match ak ñeent yu ñaari muj yi Sénégal. dugal na 23 bi te encaissé na trois bi seulement 3 bi seulement kon war nañoo gën a dugal mais boo ko gisee tamit euh, pour ñu encaissé lu jafe-jafe la donc loolu moom mooy li gars yi Aliou Cissé waxoon kon naka ngeen gisee liste 26 joueurs bi ci fàttali Burkina Faso la 6 la et Burundi donc la lii di 9 jërë ngeen jëf ba ci kanam incha allah.